مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان وأنت جليل جواد كريم يريدون وليس ويلا المدد إلهي ذاك لنيل المنى جليل حقير مسد وأنت جليل جواد كريم يريدون وليس إلا المدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu leen nuyoo te di leen ziyaar di jox ñëpp seen wàccuwaay di ñaanal bu baax sëriñ Mountakha moom Cheikh Modou Bassirou suñu borom yàggal ko fi noonu la ñuy ñaanalee bépp xalif généraux boo xamante ni yaa ngi ci biir réew mi suñu borom defal la jàmm te defal bu baax jàmm réew mi ndax euh, suñu borom dogal na ne am na jàngoro ju fi dugg suñu borom saafara ko di wax ne nag seen xarit seen soppe Jeylaani Mbaye Zikroulah moo ñëw fii tey ci Sunugal 24 di leen jox di daje ci émission bii nga xamante ni mooy axlu nabi di ci woo képp koo xam ne woykat nga rek nabiyee nga ñu la ciy wooy yal na ñëpp nga am jàmm ci barki yoon ci yàlla Muhammad lu waay jàpp nabi ibn ala wul fadle fadalaaw fadlawoo lu waay na bee gën alaa kullu fadaleen fadalaaw fadlawoo ab jeylaani marhaban ya ramadan marhaban marhaban marhaban ya ramadan